yebbi woon seeni bagage mën nañ koo riimalewaat gàdduwaat lépp luñ am ne ñuy gàddaay te xam bii yoon moom force la moom kay nag moom ba ubbi tey tëj tey rek fi amaat kii def lépp lu man di jaayu ngóora te naan année bi moom du balance moom la journal yëpp xëy tey amee ko tey ubbi leen xëtu njëkk journal yi Libération La Tribune L'Enquête Le Témoin Vox Populi ñoom ñëpp ñoo xëy tey amee seen xët wu njëkku yéenekaay ak ministre de l'éducation Mamadou Talla La Tribune nañu ginnaaw dogalub 2 juin bii ñu jàll l'état jëlaat nab dogal delloowaat l'élève d'examen yi ca l'école ya jeudi prochain bii ñu dëgmal Vox Populi nañu moom koy bañ sañu bañ def force rekk neex def naqari def libération mel na koy fel gémmiñam naan ko Mamadou lii moom moom xanaa mooy tay la bakkanu ndongo yi rek ndax li mu néew yaa ngi gën di yokk rek ne fi mu ne nii egg nañ lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay néew lii kay xanaa mooy tay la bakkanu ndongo yi rek ki tay la bakkanu baayam ba noppi yaakaar ne noonu lay séddee ca moom moo amee xët wu njëkk lii quotidien ubbi leen xët wu njëkk journal bi réccu dina fekk jëf wees waaye kii day moom réccu mënatul ci moom dara vox populi nañu moom kay dogal ba nag jolli na rek ginnaaw woolu gañ ko woolu woon fële ca Paris moom président Lamine Diack far nañ jëlub dogal daan ko lu toll ci ñeenti atu kaso lii quotidien nañu moom kay bu fa yemoon rek mu neex ne laaj nañ ko lu toll ci 328 millions libération nañu moom kay naru ta desee dara rek ne waa tamit ñoo ngi laaj lu toll ci 42,4 millions d'euros le témoin ne ñu xanaa kay moom dañu koo fàtte rek kan lañu fàtte xanaa doom ji masata jaak vox populi ne ñu kooku kay fàtte ko erreur la ndax moom daan nañ ko moom tamit lu toll ci juróomi ati kaso waaye Lamine Diack moom noppeegul ndax ma ngay wax fële ca direct news ca page 3 ba nee na kat xaalis bi ma doon jotee ci fédération yi ci atum 2009 ak 2012 maa ngi ko doon def ci parti opposition bu maître Abdoulaye Wade man kay lu tax Abdoulaye Wade xamu ko rek moo ma defi jooy ñiy tuur ronkooñu agent yeeg commandant de sapeurs pompiers yi ñoo ngi ci xët wu njëkku journal bi ubbi leen yéenekaay bi ñu fekk fa kuñ naan Adama Diouf aadama Diouf nee na ñun daal li ñu gën a métti rek ci réew mi mooy fi mu ne nii kenn wóolootuñu fu ñu dem di dencum néew rek ñu dàqu ñu génnee ñu. waa service d'hygiène nangoo wax ji ca moom ne ko ñun kay lu toll ci soixante-quinze pour cent des familles ñoom ñëpp dañ ñoo refusé dàqu ñu rek la ñuy def bu ñu fa demee di nettoyer kenn duñu recevoir. ah waar kon nag ba ëllëg ak jàmm.